tey ci altine gi seen web tv asfiyahi point org demaloon na leen fële ci yoof ci institut université du ramadan bi nga xam ni comité scientifique bu daayratul moustarchidine wal moustarchidaat ñoo fa doon amal jano ak taskatu xibaar yi ngir dégtal leen programme bi nga xam ni mooy programme université du ramadan bu année 2013 kon ñu dégtal leen kàddu ki nga xam ni mooy Cheikh Tidiane Sarr bokk ci comité scientifique bu daayratul mursarchidin wal mursarchida mm, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi leen di nuyu di leen euh, dalal jàmm yéen ñi nga xam ne yéen a jóge ci ëtt yi nga xam ne nii yéen ay tas xabaar moo xam télévision la wala rajo wala ñi nga xam ne ñoo nekk di bind ci journal yi waxtaan wi nag dafa dellu ci université du Ramadan université du Ramadan nag bu ñu ko tuddee xam-xam lañ tudd te ku ne xam na ne lislaam diine xam-xam la diine xam-xam la ndax euh, aaya bi njëkk wàcc ci alquran yàlla wàcc ko ci yonent bi sallallahu alayhi mooy iqra bismi rabbik yonent bi it ba mu dikkee madinatul war a nga xam ne fa la njëkk a créé ab état lam njëkk def mooy tabax fa jàkk jàkka ja moo nekkoon fa ñuy jaamoo yàlla waaye moo nekkoon tamit université ba nga xam ne moo doon jàngal nit ñi di leen former université ba formé nañu baree bari ñoo xam ne nii l'islam bi mu ngi leen di sagoo ba léegi bañ fa jógee lislaam bi ba mu gënee yaatu tamit ba ci jamono yi nga xam ne nii mooy dawla al abbasiya maanaam les abbasides nga xam ne nii ñoom seen jamono moo nekkoon jamono bu gënoon a ràññeeku ci biir histoire lislaam amoon na lu ñu doon tuddee ma xikma baytal ma ay kër la woon yoo xam ne nii mën nañ koo méngaleek université <coughs> loolu dafay jëmmal rek l'islam lu mu jox gëdd gu mu jox xam-xam <clears throat> te mag ñi ñu am fii ci Sénégal tamit dafa mel ne xam-xam boobu yonent bi jox importance ñoom it noonu lañ joxe woon importance xam-xam ku ci mel ne Seydil Hadj Malick mi nga xam ne mooy maamu ki créé université du Ramadan bi mu ñëwee Sénégal gisoon na ne ñu ñu ko fi jiitu woon am na ñoo xam ne ni ngànnaay lañ jëloon pour jaamaarloo ko ñi nga xam ni ñoo doon xeex diine moom ba mu dikkee mu gis ne jaamaarloo googu ci wàllu ngànnaay lañ ca doon seenu amul mu ne kon nag na jël xalimaam na jël kurusam na jël wàllu yàlla ak wàllu xam-xam pour def ko muy yoon wi nga xam ne nii ci lay liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon mu tabaxoon jàkk <coughs> moo tabaxoon mu def ay daara waaye bi mu demee it ba bëgg euh, daa daara ji gën a am solo te mu gën a tasaaroo ci Sénégal ci la créé woon Njarnde Njarnde xam ngeen ne mën nañ koo méngale ak université boo xam ne Seydi Hadj Malick dafa jëloon ay boroomi xam-xam jël ñoo xam ne am na ci ñoom yaakaar mu formé leen bi mu leen formé ba pare mu tasaare tasaarewaat leen ci Sénégal pour fu waay dem nga tijji fa jàkk tijji fa daara pour njàngale yonent bi gën a tasaaroo fii ci Sénégal mu mel ne Serigne Moustapha dafa mel ne li wolof di wax wat ci watit dafa ñëw pour jëmmal loolu nga xam ne nii moom la yonent bi jàngale te ay maamam jëfandikoo ko moom ci wàll googu rek la topp moo tax mu def université du Ramadan am na suñu benn mbokk bu ñuy wax sëñ Pathé Gueye daana wax nag ne université du Ramadan mooy jëf gi ko sëñ Moustapha jëf mooy jëf ji nga xam ne ku nekk am na loo xam ne ni buñ ko tuddee rek xel yëpp ci yow la ñuy dem muy université du Ramadan buñ ko tuddee rek xel yëpp ci moom la ñuy dem ndax mën nañ ne moom moo ko fi njëkk a def ñu koy def nag tey ba mu am fukki at ak juróom-ñett te mu ren bi nga xam ne nii moom lañ tànn nag mooy li ñu tuddee ndono wàllu ci wàllu mystique te mooy wàllu yàlla ak ndono ci wàllu politique pour kan la pour lu ko tax a jóg ak pour kan la dafa mel ne thème bii moom lañ defoon daaw waaye li tax ñu ñu ñu wéyalaat ko ren mooy njàng miñ ci mënoon a génnee dafa jeexul te yaakaar naa loolu du ren lañ ko njëkk a def am na fi yeneen at yoo xam ne jëloon nañ benn thème ñu def ko ñaari yoon ba ñetti yoon ndax dañoo gis ne lañ ca waroon a jàng jeexul ndax ku ne xam na ne diine euh, wàllu yàlla muy wàllu mystique ak wàllu politique mooy ndono bi nga xam ne nii moom la fi yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi ñaar yooyu ñoo ca ëpp doole kon pour jàngat lu mel noonu mënul jeex ci benn édition moo tax ñu indiwaat ko wéyalaat ko cette année te comme niñ ko daan defee nag danañ ci woo ay borom xam-xam yu baree baree baree bëri gannaaw bi sëñ Moustapha tijjee université bi indil ñu ni mu déggee thème centrale bi ak li ci bees ak li ci yokk ak lu mu ñu waxul woon daaw mu wax ñu ko ci dana am ay borom xam yu ñëw ku ci nekk ak thème bañ la dénk am na ñoo xam ne nii ci politique la ñuy waxtaan am na ñoo xam ne ci économie la ñuy waxtaan am na ñoo xam ne nii ci religion la ñuy waxtaan am na ñoo xam ne ci société la ñuy waxtaan mu nekk ay borom xam-xam yoo xam ne dañ leen a tànn wóolu leen ci fànn ga ñuy yëngu pour ñu ñëw waxtaan ak ñun ci wàllu googu su ko defee li ci des mooy organisation bi organisation bi niñ ko daan defee rek lañ ko defee mooy fii lañ koy defee ci biir université du Ramadan fii la ñuy defee conférence yëpp waaye nag du tee nañ ko daan defee ci yeneen gox-goxaat yi danañ continuer di ko fa def daayira yi danañ fa daje ak nit ñi nga xam ne nii ñoom la mbir mi intéressé pour dem fa suivre ko ndax internet bi danañu may ñu def ko en direct su ko defee mbokk yëpp mën ko suivre andoo foofa ñi ngi may wax sax ne rajo télévision Mourchid bi dana ko def en direct ko defee mbokk yëpp mën ko fa suivre andoo mën a poser ay question en direct ki nga xam ne nii mooy def waxtaan bi mën a def seen ay contribution tamit comme ni nga xam ne nii noonu lañ koy defee waxuma sax ñi nekk Sénégal mais ñi nekk bitim réew dañ koy def di poser ay questions léeg-léeg question jóge Suisse léeg-léeg question jóge Soudan léeg-léeg question jóge feneen pour ñëw pour wane ne ñu ngi suivre université yi loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ ci bëggoon a tënk ci wolof bi pour wax leen ko li aju ci wàllu université bi nga xam ne nii mooy fukkeelu édition ak ñett ak juróom-ñett asalaamaaleykum wa rahmatullah